jërëjëf mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyuwaat di leen ndokkeel ci di leen sargal buur géwél Fatim Diop da baax Dakaractu di dox toujours ci doxu làmb tey nag ñoo certifié xale boo xamante ne que eh dama wax ni ñu ko supporter ci làmb ji bariwul buy ñëw rëbës yëpp ay màbb def ay drapeau yu xonk cur di taal mu fumigène yi si koy jolli xale yi tëbbi dal rakkaaju lool nag mel ni ay xare yu lekk ripaas kooku mënaan ko saa su ne koo bëreel tegal ko ko moteur muy double moteur ku ne xam ne dafay waaj bés bu rëy bés bu rëy a rëy rëy ci diggante ak Quench Quench moom tamit nekk un grand champion te nag ñoo seet si ko fi nga xamante ne moom mooy rëbës ci école bi muy entraîné fas yéene waxtaan ak moom waxtaanu lamb Double maa ngi lay ziar. aujubilaa bisimilah ne woon yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba gàcce nga la moom maam Cheikh Mour Ibrahima Fall ñu ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp ginnaaw bi sant yàlla julli si yonent bi sant ñaari waajur baax baax. di nuyu suñu sëriñ maam Thierno Mbacke imam ak njaboot Cheikh Modou Kara bi di siyaar kilifa diine yeeg kilifa aada yëpp waaw di nuyu waa bi yëpp. double moteur lu tax double moteur. waaw double moteur benn jeune la rek benn taalibe la rek bu nekk rëbës juddoo rëbës yaroo rëbës màggee rëbës nekk ci làmb ji di représenté Dakar plateau bi xam nga di bay waaram daal. Mhm. double ci ban ci la jaar ba nekk mbër. waaw yoon bi mbër jaar rek nekk xale bëgg ko di ko foowee nekkoon di jàng bàyyi jàng di jàng métier waa xam nga métier moom mën nga ko boole ak ay wàcc dem di entraînement ak yooyu ndax lam moom jàng rek la àndul jàng rek nga ko mënul booleel moo tax dañ doon jàng métier bu ñu bu ñu bu ñu wàccee liggéey dem di entraîné ji affaire yooyu nekk di topp mbëri affaire yooyu loolu rek comme ni muy ni muy duggee yeneen gars rek. gis nañ ni Rebeuss du comme Fass du comme Parcelles Rebeuss mën mën nañu wax ne que yaay champion bi fi njëkk juddu bu ñu bu ñu bu ñu xoolee ci dara ko mën nañu wax loolu. waaw Rebeus nag yàgg na am ay ay mbër yàgg nañ am ay mbër yàgg nañ ay champion waaw xëy na peut-être lamb ji léegi moo toll foo xamante ni xam affaire quartier la rek moo tax ku nekk sa quartier ngay représenté waaw noonu la demee quoi moo tax ñun suñu écrit toujours dafa nekk dañoo dimbali suñu écrit nekk suñu biir koñ waaw. Euh, ku ne xam ne Rebeus yàgg naa mi champion double moteur nekkoon ci yoon. Euh, ba saison defe naa daaw jéet la euh, Mame Balla freiné na ko mu bett mondu làmb yëpp euh, Double bés boobu lan moo doxal woon lan la. waaw bés boobu bés boobu mooy loolu bés boobu noonu la mënoon demee rek bés boobu moom. waaw bés xam nga làmb moom daanak daanu ak machine yi ci làmb loolu la rek xëy na boobu yàlla moo noonu dañuy ñàkk rek ñu ñàkk ñun loolu lañ ko jàppee. waaw mais xam nga combat boobu yow yaa doon favori. xam nga yàlla moo ne woon damay ñàkk rek ma ñàkk maanaam thèse la bu xaw a bokk foo yóbboo rek mbir mi day fermé wu mais xam nga li la manque ci bés ba nga ñàkk parce que combat boobu tey boo doon tegloo ay nit quatre-vingt-dix pour cent dañ la naan double moteur moom moom combat bi te jour boobu am na lu marché wul ci yow ba nga ñàkk avant yàlla di ñëw. waaw loolu nag man li ma ko jàppee du leneen lu excès de confiance rek. waaw pour man loolu moo ñu xañ quoi mais du leneen parce que def nañ lépp lu ñu waroon def yebee nañ ñu ni ñu waroon yebee xam nga waaw extra confiance moo ñëw rek. Mm. waaw parce que li ñu xañ combat bi ñun ñoo ko yàqal suñu bopp. Mm-hmm. waaw double ñi mel ne encaissé ay coups mais souvent dañu gis ne ku double du fayu muy double bu xasee ba jàpp même boo ko doon dóor mille coups euh, li mu jàpp rek lay xool te loolu aussi défaut la ci mbër. wala du défaut. waaw défaut la mais ñun dañuy sant yàlla rek ñun ay xale yu ndaw lañ xam nga mënuñu tëb tëb matale lépp te teel a sotti la sax wóorul. kon dañuy sant yàlla ba nga xamante ji ñu ngi teel a xam li ñu manqué dañ ciy gën a góorgóorlu liggéey ci rek xam waaw comme loolu moo ñu manqué moom xam naa dañ ciy gën a liggéey rek incha allah. sa komba ak Naaru Sokaas euh, gis nañu combat bu yomboon ci yow la nga ñëw dal ci fëgg ñu gisaat la même situation mooy bagaar bi toujours da ngay man combat boobu ñu ci ba demoon nañ ba jàpp ni que sax mënoon nga ñàkk. waaw loolu ñu ci sant yàlla rek waaw parce que lamb yi xëy na mooy demee noonu mooy laaj loolu parce que bëre ñaar ñoo koy def ñaar ñooy bëre du kenn nit kese mooy bëre xam nga ñun samay adversaire laay dajal rek ku ci nekk da ngay andi da ngay andi sa morom andi dañuy ñàkkante rek xëy na yàlla mooy may ndam mais des fois mën na yomb des fois mën na metti mais lii l'essentiel bi moom mooy ndam rek waaw parce que ñun saa su ne rek bu ñuy dem loolu la ñuy ñaan ndam la ñuy ñaan te xam nga lu mu metti metti rek nañu yàlla suturaal ñoom ndam daal moo tax à chaque fois bu ñuy dem dañuy sóoraale mën na métti mën na yomb. mais waa Rëbës nangu ñu defet waa Rëbës du ñu lu ñu population bu bu nangu defet parce que keroog gis nañ sa diggante ak Mame Balla keroog stade xaw na jaxasoo. waaw noonu la demee non gars yi moom Rëbës moom yàlla dafa def dañoo solidaire mais xam-xam leen ci non à la violence Rëbës moom xam amuñu amuñu violence. parce que dalee bi ñu ah keroog xëy na ni mu la rek parce que lamb ji moo deme noonu xam nga lamb ji amaana tey jii am na nu mu doon jeexee coow mën na cee bañ a am parce que tamit Rebeus bëri na sportif dëkku sportif la. mais coow li lan moo la dañ leen def ci làmb ji lu leen neexul wala gars yi défaite bi moo leen neexul. non coow li xam naa peut être peut moo neexul gaay yi rek parce que làmb ji gis na ni mu demee foofu. lan hmm? ni mu terminé yéen ñëpp gis ngeen ko xam hmm. waa moo tax xëy na peut être coow am ba rek. mais xam nga bu doon tey jii nii maanaam dañoo bëre daanu jël bu leer wala dara amaana coow li mën na bañ a bëri. da nga jàpp ne ba leerul ndax déposé wu recours non yooyu noonu moom man du sama domaine quoi yooyu man nekkul sama domaine. man bu dee danga bëree jàpp ni que jël bi ñu daan leerul ba say supporter taxaw di ko ñaxtu donc pourquoi defoo li la yoon may bu la yoon may nga jël bu la xañee ñu xam ni xañ na la. non làmb jooju ñun dañoo jàpp ni dañoo waroon ñàkk-ñàkk xam nga làmb nag nit moom day ñàkkee nu ne xam nga victoire ni da koy amee nu ne ñu tamit day ñàkkee nu ne dañoo jàpp ni dañoo waroon ñàkk-ñàkk nañ loolu kese la. waaw xëy na être ni dama la wax ni la peut-être ko ni ñu ñàkkee moo metti moo waral coow li am ak yooyu noonu mais amaana am na nu ñu doon ñàkkee coow mën naa bañ a am foofu laa waxee quoi mais làmb jooju dañoo ñàkk. double moteur ci yoon ba daj ba war a daje tey ak Quench Quench tey boo ko doon décortiquer ci làmb ban genre mbër la. waaw Quench moom mbër la bu ñu respecté bu ñu fekk ci làmb xam nga mbër bu ñu respecté ñu fekk ci làmb mu jiitu ñu ci làmb. waaw ñu ñu nekk ay booy yu ndaw di bay suñu waar ba làmb boole ñoo moom xam nga dara desul pour man lu dul liggéey rek jàpp ko daan ko parce que tamit ñun parewuñu pour Quench wala keneen ak keneen parce que carrière la ñuy def dañuy ñaan yàlla tey jii dem ba nekk roi des arènes wala ñu bokk si ñi fi mën dem ba bokk si VIP yi nit nag bu fekkee na nga objectif boobu noonu doo bàyyi xel ay benn adversaire wala ñaari adversaire loolu kese la waaye quand même adversaire bu sérieux la waaw moo tax ñu jël ko parce que xam lam moom day toll làmb par niveau la rek am na niveau yoo xam te ni boo fa duggee moom ala kuliyaalin moom ñi ngay dajal moom day métti mënut a yombu ci dara waaw parce que tey jii nii am na niveau boom boo fa duggee moom mënoo am adversaire boo xamante ne tey jii da nga koy ëpp doole lool wala dara ëpp doole bu fay am tamit différence bi mën naa bañ a feeñ sax ci bëtu nit ñi wala dara kon foofu noonu dara des fa lu dul liggéey kese moo fay des waaw niveau boobu nag moom lañ toll. kon instant yii du wax moo ñu warul dara liggéey rek moo ñu war. kon jàpp nga ne Coins si di ko tegal moteur. non loolu mënut a ñàkk loolu force la. saa yu Coins nga dayal Coins Coins neexutu tegal moteur de. non <laughs> déggoo li la xanaa ñun teguñ suñu bët sax ci Coins laa la wax du moom lañ teg suñu bët xëy na adversaire la boo xam ne moo ñu boole ñu war a bëri nii rek. Coins keroog nee na la fii ngay toog say supporters di la jay ngay yuuxu rek waaye xam nga ni que li ngay wax nii doo ci def dara parce li ngay wax gëmoo ah loolu bi mu ko wax itam dégg na li ma ko tontu xam nga moom loolu ay waxam la rek ñun mënuñu nekk ci laamu nekk ay booy ndaw liggéey li ñuy liggéey ba agsi war a moom muy wax genre wax yooyu noonu xam nga. ah, ah mais nag mais dafa wax moom li mu gëm rek ah ginnaaw bi nga waxee li nga gëm moom dafa wax li mu gëm nee la ndakaaru ëppoo ko fi ay bokk ndax lébu ñooy borom ndakaaru. ah loolu àgguguñ ca gënu ñoo doon lébu xëy dafa mën a wax di wax rek mais loolu yëpp àgguguñ ca bis ba leer incha allah. comment jàngat nga combat am digganteem ak Diène Kairé la ca am jàngat nga combat am digganteem ku ci mel ni Marley jàngat nga combat am ku ci mel ni Pape Général eh, comment si dafay mbër moo xam ne dafay imposer adversaire am moom suprématie am li ne ci moom mooy dooleem def koy imposer adversaire am eh, Double Moteur ak comment jàpp nga ne moo la ëpp doole. waaw loolu moo gën a neex nag ci combat bi waaw puissance boobu muy imposer moom moo gën a neex ci combat bi. doole ji mu yor. loolu muy imposer. puissance lay imposer mais xam nga doole moom da ko jaay ko ëpp la rek doole moom. kon si ëpp la doole. non kon si moom xam nga ni moo ma ëppee doole moom bu yeboo sax man ma dem xaru ji. boo xamante ne daji ba muy bëre boobu mën naa ni sax man maa ngi jàng école wala ma nekk di jàng métier moom mag téeméeri junni yoon xam nga bu ñu taxawee tey jii nii ci balance tey jii nii bu bu ma ko wàcceewul mënu maa wàccee kooku bu ma ëppee doole bu yeboo ma dem xaru ja mais est ce que parce que gisuma ci yéen cokki bu cokki bu ñàngee noonu quoi est ce que waaw comme bi ñëpp jug taxaw ëffalkat yi kontaan. non combat bi moom lu ne mën na ci am combat bi lu ne mën na ci am waaw combat bi moom ba kenn tëdd déggoo ma lu ne mën na ci am combat bi la rek waaw lu ne mën na ci am parce que bëre dóor lañ wax en tout cas daal di leen xeex di leen bëre waaw di ngeen xeex di ngeen bëre waaw loolu leer na ma combat ñaari lébu la waaw maa ñaari de dañuy bëri soir far ñoom da baax waaye daal nañ jox ngeen amateur yi rendez-vous daal ni combat bu extraordinaire lay doon. combat bi combat amateur yi la. combat la boo xam ne combat amateur yi la. waaye fa koy sori na ci yéen. arène nationale sa yi sax dañ naan añ ba pare rek la foo seen kol dox ndànk booy dox ndànk dem mais mais waaw arène bi xaw na la sori. non arène bi waaw arène bi sori na soriwul. arène bi moom sori na soriwul rek xam nga parce que arène bi ay ñoo fay dem te oto yaa fi. di ko fay sax. rabbi. di ngeen feesal arène nationale. non loolu waxatuñ ko loolu biti la fanaan lamb ji moom xam naa ne moom moom mooy lool moom ku bëgg a visibilité rek moom teelal ñëw moom comme ni nga ko waxee sànq moom. Mm-hmm. une moom xam naa ne moom journaliste bi bu mu fa fekk bu mu fa fekkul moom xam naa ne di nga am problème. double moto nan ngay demee booba esal double booy darlak yu xonq yooyu supporters yi kañ njang njang jeeg rajax jeeg double nooy demee bis booba. waaw loolu xam nga loolu moom dañuy siy demee dem bu dem bu wuuteeg nag dem yi daan demee. lu waaw dem parce que bis bee ni toll. Hmm. waaw xam nga bis bu nekk ak li laaj. te bis bi tamit loolu laaj. jox bis mi ñor la ba foofu lan la. yokkoon si da ngeen a mës a xeex ci ngénte da ngeen a mës a bakku gel da ngeen a lan mooy seen problème yi. non kon amuñu benn problème ay adversaire la ñu war a bëree bokk yoon tey jii parce que tey boo xoolee tey ñun dañu war a bëree ñi si kaw muy moom di man di jéem kër di de suite xam nga hmm. te tey nekk nañ ci benn porte boo xamante ne tey pour ñu si kaw tàllal ñu loxo tamit foog ñun ñu bëri suñu biir xam nga xëy na moom jéen bëri nañ match nil waaw tey jii nii tamit ñoom ñaar ku ci nekk foog nga jëlaat kenn. combat bu naqaree amateur yi mbaa du ngeen fi indiwaat loolu leen mënul am sama diggante moom parce que man moom man sama combat am demee noonu man moom sama combat am ku ne xam na ne man moom sama combat am mënta yomb parce que man man du ma xaar benn adversaire waaw man moom amul benn adversaire bu may xaar wala dara. Double lay tàggoo. waaw li may tàggoo xanaa di sant di gërëm rek. waaw di sant ñi nga xamante ne tey jii nii ñoom ngeen ñu fekk ñu nekk ak ñoom mooy waa écurie bi entraîneurs yi ñi ci gën a ñi ci kaw ba ñu ci suuf ku ci mel ni Cheikh Diaw suñu coach Ibra Faye xam nga joob Diop Xaadim Jaxate xam nga Taala booy Ka waaw di leen sant mooy coach yi ngi fiy gis ñuy entraîné waaw ñooñu la ñuy sant xam nga di lancer appel tamit di woo autorités yi nga xamante ñoo nekk si Dakar Plateau bi xam nga ku ci mel ni tey suñu maire Alioune Ndoye dañ koy woo si combat bi baax mu jàpp si parce que soxla nañ si tamit war na si mën a jàpp ñu ngi koy wo bu baax a baax ci combat bi xam nga ku ci mel ni Cheikh Lo ñu ngi koy woo ministre Yakham bay xam nga ñu koy woo suñu papa Diop si moom kooku moom ñu ne moom mooy loolu moom xam na lépp xam nga lenn lañ koy dagaan mooy mu yokk bi yi loolu kese lañ koy dagaan suñu papa Diop si parce que moom mooy suñu Malick Gakou mooy suñu lépp waaw li mu li muy jënd si ay billets amul kenn ku koy jënd si ay billets kon tey jii nii moom dañ koy gën a woo rek xamal ko ni ko combat bi tey jii nii liñ ci soxla du lenn lu dul ay billets billets lu mu gën a mën a yokk rek moo ñu gënal fuuf di woo Lamine Mbengue bu baax a baax di woo Popol Douagne xam nga Pascal Douagne ñu ngi koy woo bu baax a baax xam nga di woo ñi nga xamante ni tamit ñoo si yàgg a ku ci mel ni Elimane Gueye taalibe Serigne Saliou ku ci mel ni Mortala Gueye taalibe Serigne Saliou ku ci mel ni général xam nga bu double moteur tamit ñu ngi koy woo bu baax a baax xam nga di woo sama gars yi nga xamante ni tamit ñoo nekk si diaspora bi ñëpp ku ci mel ne ñoom Pape Avion gars yi yëpp ñi nga xamante ni dañ ciy sonn ay ñoom Diop dollar ñoom ñoom Wuri ñu leen di woo bu baax a baax si combat bi xam nga ak sama doom day Abdou taal di ko woo tamit ci combat bi parce que tamit ñoom dañ siy jàpp daal. Mhm. waaw parce que ñun ñun. lamb dafa métti ñi ma lim fii majeure partie bi ñu si bëri ay Baye Fall lañ du du bu ñuy jox du dara. mais ay nit lañ yoo xamante ni ba dara dul dara la ku ci mel ni Boubacar Diarra moo fast food boo xamante ni bi may bërëm ba pare ba léegi la la ma la ma gérer añ reer ndekki. te ku nga xam ne jàppale mbër loolu mooy jàppale. parce que kooku bi muy def loolu ci man xalaatul ni sax dinaa mës a bëri cent mill franc ci làmb. ndax ay mbappatu dix mille laa doon bëri ay quinze mille. mu may jox ay hamburger yoo xamante ni deux mille lay jar ay ginaar yoo xamante ni cinq mille lay jar. moom ma koy jox may lekk nekk booy bu ndaw kooku xam nga yaakaarul woon man dara. boobu ba tey la ko gën a mën chaque jour ko jëfee sama reer dafa dem ba yematuloo ko ci man booy yi may àndal sax chaque jour fas yu di foofu la ñuy reeree kon koy sant mo papam bu baax di ko ñaanal yàlla gudd fan xam nga li mu bëgg si àddunaam yàlla defal ko ko baax baax a baax parce que nit la koo xamante ne dafa yàgg sonn si ñun ay abu yi nga xamante ne dañ ci yàgg sonn xam nga ku ci mel ni masse pièce déchargée ñu ngi koy sant bu baax moom tamit di sant gars yi sonn ci combat bi yëpp di si jàpp waaw munoo waaw boo limee xam nga rek da ngay jum ku ci mel ni maam góor Samb xam bu bëggul sax ñuy tudd turam mais mënuñu ko ñàkk bañ a sant Ndiaye Ndera xam di ko sant bu baax parce que ma dund day son yàgg sonn si ñun ay Abdou Got waaw baax bool bool yi moom ñu kenn ku ci mel ni Modou Diagne sama grand lu ne lay def ci sama combat ñooñu dañ leen di sant mention spéciale parce que tey jii ñooñu yoruñu lu ne gàññ mais li ñu yor la ñuy jël di ko bokk ak ñun xam nga nekkuñu ay milliardaire nekkuñu ay multimillionnaire mais li ñu am ak néew yàlla dénk leen ko dañ koy jël di ko def si ñun kon ñooñu loolu mooy jàppale te yàlla rek tax parce que ñoom dañuy jàppale te xooluñu si ñun un franc xooluñu lu ñu am ak lu ñu amul kon ñooñu dañ leen di sant bu baax ak suñu président Saliou Diop ñu koy sand bu baax moom tamit ay ñoom Baba Touré gars yi nga xamante ne tey ñoom dañ ciy jàpp xam nga ñu leen di sant bu baax ak Bengue président supporters yi ak mafia supporters yi gars yi nga xamante ni chaque jour que jëfee seen débat mooy combat 100 pour cent double moteur bi xam nga double sans frontière bi mafia double moteur bi groupe whatsapp yi gars yëpp dama leen di sant bu baax a baax di leen gërëm que maa ngi gis initiative yi ñuy def xam nga day seen ay wéccet ay téeméer ay 1000 francs xam di ko jàppale mbër te loolu dafa metti làmb ku ne xam ne dafa metti ñooñu nag la ñuy sant bu baax a baax a baax di leen gërëm bu baax waaw war na war na dëgg-dëgg ku la defal lu baax nga wax ko euh, xale bi mbappat di jàng bëre yaakaar ci dimbalay waajuram Euh, ku dugal sa loxo ci moom euh, jàppale nga ko euh, gis nga comme ni ko duubul waxee rek ñoom ñu dara lu lu gërëm leen aussi tamit te opportunité la boo xam ne dañ leen koy may duubul dafa nga koo fàtte. loolu weesoo dañuy jaale. suñu père Kanté dafa génn àdduna barki démb. ñu koy jaale waa Rebeuss yëpp ak suñu imam Baba. dafa génn àdduna fan yee passé. ak Zilbal Junior waaw xam ak Zilbal Junior. tamit ñu koy Zilbal Junior dañ jaale waa àdduna di ko jaale waa xolu làmb. suñu imaamu koñ baaba ñu koy jaale waa Rëbës yëpp ñu ko jaale waa adduna yëpp parce que nit la koo xamante ni da doon sonn si ndaw jeunesse Rëbës yëpp xamul xale amul mag ku nekk da koy déplacé ci lépp lépp lu xew maanaam moom laa xam ne tey jii nii Rëbës ñàkk nañ koo xamante ni duñ ko gaaw a amaat parce que nit la woon koo xamante ne tey jii nii lu Rëbës tàng tàng tàng tàng tàng tàng bu solee daalam bu ci doxee ñaari pas lépp sedd kon ku mel noonu tey suñ ko ñàkkee rek ñàkk nañ koo xamante ni tey jii nii mënatuñ ko amaat fenn Père Kande aussi tamit même chose kilifa la woon ci rëbës bi koo xamante ne tey jii nii barki démb la génn àdduna mais kenn la woon ci rëbës koo xamante ne tamit coow lu mu rëy rëy rëy rëy rëy tamit moom bu si doxee tey jii day tànku jàmm rek day sedd guy ñu ñàkk ñaan ñooñu si même pas un mois ñu koy jooy ba tey noppeeguñu xam nga ñu leen di ñaanal yàlla tamit xam nga mu mu yërëm leen rek te xaar leen àjjana su fooyee seen kaw xam nga di ñaanal tam sama gars yi nga xamante ne tam ñoom ñoo nekk ci 100 bi ñoo nekk ci kaso yi mu limee damay juum xam nga mafia bi gars yi nekk ci biir yëpp maa leen di ñaanal yàlla génne leen ñu fekkee combat bi parce que am na si ñoo xamante ne tey jii nii ñu nag ñoom loon fii xam nga ñoom bu ñu déggee xam nañ li may wax bu baax a leen di ñaanal rek ñu génn xam nga ñëwaat ñu nekkaat ci préparation bi mooy loolu. Mhm. dañu leen a ñaanal ñu génn nekkaat ci préparation bi ñuy fàttaliku ñu nekk ci kaso yi euh, di ñaan yàlla génnee leen te li taxoon ñu yóbbu leen fa yàlla bum leen dalaat bañ di fa dellu Euh, di fàttaliku aussi ñi nga xamante ne que tey jàngoro ji di coronavirus bi yóbbu na leen euh, di ñaan yàlla xare leen altana ñi nga xamante ne que dal na leen ñi ñu mettre leen en quarantaine ñi nekk ci hôpital yi muy cas ko ka importe importé cas communautaire lépp yàlla nañ ci yàlla musal euh, xanaa rek gis ngeen loolu la ñu jël si woon tey fi nga xamante ne que moom mooy rëbës ci le grand champion double moteur damay wax ni xale la boo xam ne bi mu duggee ci làmb ji yàggul waaye tey bu yegsee fii jom moo bu yegsee fii bëgg li muy def moo ko may ndax nit dina mën la muy def te du ko bëgg nit dina mën la muy def te du ci am jom waaye bu boolee mën ko ak bëgg ko ak am ci jom kon bu yegsee fii logique la doon kon mbokk yi ni lañ koy jàppoo ak yéen sur Dakaractu des émission lamb yoo xam ne dama ci ànd ak suma jigéen Fatou Diop da baax ci caméraman bi ku ne xam ne ni Cheikh Omar gay chef caméraman yi ànd ak apprenti am rakkam Ousmane Diouf ci monteur bi Papa Omar Soxna kon dañuy ànd ak yéen jox leen dig daje ba yeneen di jamono sur Dakaractu.